xale xale yu góor yi labat xale yu jigéen yi duñ leen wax dëgg jigéen dañ koy wax dëgg ki ngay yor war koo yilif dund ak moom ay at daa war a xam sa jikko normal waaye di labat xale bu jigéen lu nekk nga dikkoo ko am naa lii nii laay doxee nii laa lay nii laa lay yore alors ko boo ko yoree du gis loolu ci yow même bu dul intérêt sax day xam ne kii fenkat la naru maa yor nga baal ma ci ci terme bi loolu moo dul yoon. te léegi jigéen léegi xaalis la ñuy sëy sëy ñu ngir yàlla sëy ñu diine sëy ñu lislaam àddina lu mu demee noonu la ñuy sëyee te loolu baaxul si lislaam boo gisee jullit yi nekk ñu di avancé lépp lu yàlla wax lépp dogaluñu ko. doomu aadama yi doy lootuñu parce que booy xool li ñeneen am foo dem doo mën a toog te sunu borom mooy séddale ku ci ne am na lu mu la jox donc boo loolu li ma jox nag da sant sunu borom ci loolu xam ne ki nga nekkal moom moom moom moom moom mu dumay boobam. dañ koy may rek. njëkk euh, boo demoon sëyi ci kër famille nga dem sëyi euh, kër famille boobu njëkkee nga fa rek ku jëkkër ku góor a nga fa maama nga fa lépp a nga fa mu nekk kër famille boo xam ne ñëpp te bu añ paree ñëppay booloo léegi euh, bu fekkee ne dangaa jotee sa jëkkër. sa yaay sagoo day jóg ñëw wax bu bu waxee ak yow yow mi nga xam yaay sëy bu fekkee yaa tooñ mais ba tey dañuy wax bu pare après bu fekkee sa jëkkër moo tooñ xam ne yow dañuy wax ak ba pare après doog a moom bu ko defee ngeen delluwaat ni ngeen nekkoon. kilifa daf ci amatul. parce que man mi di wax ak yow sama amee soxna dinaa ci rus sama papa wala sama yaay li ma xale bi def ma war koo mën a muñ ndax ñoom waaye du ko def damay préféré dóor mbécc wala ma fajal sama bopp parce que xale bu ci ay bu ci ay mag jàppul du wax looloo waral divorce bu bari. parce que say ak lu mënti doon rek boo koy def boo ko defee ngir yàlla di nga ko teg ci yoon waaye léegi nag fi mu toll nii mën naa ne waajur yi ñooy fondement bi ñoo jiitu ci li waral sëy ëpp ci liy tas. deuxièmement bi soxna yi seeta ñu te yàlla tax dañuy sey ngir matériel sey ngir matière adduna yi mooy tax ñuy sey góor ñi tam ñu ci bari dañoo mën tam muñ moo tax pour ñu yor soxna day jafe parce que soxna kat sëñ Touba waxoon nañu ne jigéen moom na ngeen ko bàyyi xel ndax da leen di tooñ ba pare njëkk leen a mer koo xam ne nag da lay tooñ ba pare njëkk laa koo mën a ëpp xel gën koo yaru soog koo mën a yor. góor dina la euh, incarné loo xam ne xëy na tamit nekkul ci moom. wala xëy na li mu lay incarné ci alal xëy na amu ko léegi su fekkee nii par exemple da ngeen di génn mu lay jox xaalis loo bëgg mu defal la ko da nga naan kii su ma takkee dina ma yor alal ko su la takkee mën na bañ a nekk le cas bu ko defee yow liy waral divorce yi en général xëy na peut-être li nga doon yaakaar ci sëy bi demeewul noonu. ay léegi liñ jigéen ñi xewal mooy ay millions la ñuy joxe léegi ay boo ko amul doo am jabar góor ñi tamit muñal jigéen ñi jigéen ñi muñal góor ñi jàppalante ndax sëy moom neexut sëy moom day métti ndax instant moom yaa ma gën a xam day ñëw lii day neex lii day naqari waaw jigéen ñi moom am na ñoo xam ne moom sëgguñu sëy dañuy dem seeti rek dañuy dem xooli bu neexee ñu toog bu naqaree ñu ñëwaat lekk seen xaalis xaalisu góor ñi avec yooyu mbaraan yi moom yooyu moo si dox instant yi moo fi nekk. war nañoo dépassé daal benn level boo xamante ne encaissé xaalisu jàmbur ba pare dem fa ñaari fan ñibbisiwaat xam nga mooy loolu quoi ñu bàyyi la noonu par dans l'air après ngay taxawal nekkaat sa bopp. jëlaat beneen vie boo xamante ne te ku la ci gis du la ci nawloo daal man daal lu ma soñoon gars yi arrêté waat loolu delluwaat ci suñu maam xoolaat suñu naaw ndax dañuy sëy pour alal dañuy sëy lu lay neex dañuy sëy daal da nga doon toog sa goro footal ko yekkal footal ko defal ko lu ne mais xale bëggatuñoo boo waxee rek mu ne bëgguma goro ah luy bëgguma goro te yow ñu ñu jur la mënoo bëgg doom ba pare bañ yaayam. boo bëggee doom danga da ngay bëgg yaayam ah, mooy mooy yoon nit ko boo ko bëggee daal da nga koy bëgg sa léppam léppam ngay boole bëgg yaay xarit nijaay tout ngay boole bëgg mais doo bëgg jëkkër kete kete mënta ne sëy bi ñëpp ñëpp la sëy pour ñëpp la mais du pour yàgg sa jëkkër rek man sama jëkkër sama doom mënta am du te ba mënta yàgg ci dugg jiit jiitaluñ ci sunu borom yàlla parce que li loolu loolu say jaamu yàlla la moo ko la du matériel du xaalis waaw jaamu yàlla bu rë bu bu wér la boo ci dugg danga nga ciy jiital yàlla fii lu fi nit def rek danga nga ciy jiital sunu borom lu mat du fi am dañuy mottilinte ba ilaa yow mi moom lu mat du fi am dañuy mottilinte rek waaw xam ne jaar-jaar bu nañ ko rafetal te bañ ko ñaawal